waaw soxna si maa ngi lay nuyu. ñoo ngi ziar bu wér man jaara laa tudd. jaara da am mbokk fii nga xamante ni moo di rëbës gannaaw bañ la fi fekkee ci ñi nga xamante ni moo di xale yi nga xam ne dañ leen a jàppoon ci politique bi boo war leen a génnee fan yii yëpp ndax da nga ci am koo xamante ni sa mbokk la wala. waaw sama raq moo fi nekk ma sama raq waaw ñoo bokk ndey ak baay moom euh, ñu ngi ko jàppee woon euh, manifestation mois de juin lañ ko jàppee woon. mais anam bi ñu ko jàppee moo ñu gën a naqari. yan bi ñu ko jàppee mooy dañ koo dóor ba mu sàngoo deretam dóor yi métti ba mu dugg fa ay dóor yi métti la duggaale mais mois de juin boo bële gi ñu dem euh, fi mu tudd sax ñu ñu kii ko euh, yóbbu ko fële tribunal ñu yéeg di wàcc par la suite ci la ñu ne dañ koo defeere affaire bu nekk mu métti suñu nag metti suñu yaay torop nag te noog moom nag dafa nekk soutien de famille yor liggéeyam di liggéey. Euh, ñu ñëw tëj ko fii ni ci loo xam ne ay joo koo xam ne dafa jóg di xeexal réewam mu doon lu metti si ñun nag waaw boobu ba léegi nag ñu ngi ñëw di yéeg ko wàcc daal di ko andil añ yóbbu añ bi metti na visite bi metti même boo dugalee bool boo koy génnee sax laa day metti te ñu ngi jógee fa sori di ñëw bu sa añ tardir doo dugg kon bu dugg sa mbokk du lekk waaw d'accord sànq suñuy waxtaan ñun ñaar dégg naa la nga ne biñ ko jàppee dañ ko dóor dóor yu metti ba yére yi nga xam ne moom la soloon mu ngi sa kër nga denc lan moo sabab denc goog nga denc yére yi ba tey waaw denc boobu dañ ko denc pour ëllëg pour tam pour bu génne boy dafa bëgg a def euh, plainte wala moo bëgg a topp cas moo tax mu denc yére yi pour mu wu preuve yére yi dafa taq deret bu mu ko dugal bu ñu ko yóbbu police police su parcelle unité 15 bu ñu ko jàppee woon foofu sax yére yu mu soloon sama borom kër dem na ba foofu mu ne ma dem leen ngeen changé ko yéen ndax yére yu mu sol ni ni waxta gis si bët ci lañ dem chambre am jël jël ay yére ñoo changé ko ko si la jël yére def ko ci mbuus mu yóbbu ko sama kër denc ko fa yére yaa ngi foofu ba léegi. ci bopp ci bopp lañ ko doon dóor di ko wéq di ko jël seen piste ak kii fetali di ko di ko ko dóor ci bopp waaw. moom ndax da doon manifester wala da doon nekkoon koo xamante ni da doon jaay rek nu daal di koy jàpp wala nu mu demee. la. waaw boo déggee patriote GPS la nekk patriote bu mag la kon nag bu ñu téye sa leader war nga mën a génn manifester du yàgg wane lii dafa metti kii ñu téye sama kii neexuñu ak yooyu ñoom nag seen kii lañ doon woon seen naqar lañ doon woon ci réew mi daal ak réew mi ni muy doxee loolu la. gis nañ tey nga ñëw danga ñëw ngir indil ko añ wala da nga ñëw ngir def lan. noonu dama ñëw pour indil ko añ dégg ne fan yii yëpp ñu ngi génnee euh, détenu politique yi. loolu moo taxoon ma ñëw andil ko añ di xoolaal ba xam moom it dina génn ndaxte vendredi passé fi lañ nekkoon ba 21h sama yaay moom sama yaay mi ngi dëkk moo mujj woon ne ma demal nga ñibbi ndax xale yi kese ñoo nekk munoo fa kese bàyyi fa xale kese dem leen ngeen ñibbi mais bu ma ñibbee bàyyi naa sama frère moo fi teeku toogoon def naa ba une heure xaw ma deux heures xam dina mën a génnam déet waaw. ndax tey bi nga ñëwee gis nga ko wala jotu leen gisante. non non gisuñoo jotuñoo gisante mais woo na ma ci suba. bi ma woo ci suba laaj naa ko ne ko léegi lan lañ wax ñu ne ko ah mën a ah waxaguñ dara parce que ñu ngi ci loxo yàlla xaw ma danañu génne wala déet ñu ngi toog di xaar waaw. moom at la am. moom moom mooy sama ñaareelu rakk nag mooy sama ñaareelu rakk nag mais ay atam nag ma ko fàtte xaw ma ay atam waaw non dencagul soxna déedéet dencagul soxna. d'accord gannaaw ba nga ñëwee ci li nga xamante ni moo di ci prison bi ba daal di fi fekk sa rakk ci premier jour bi nga xamante ni jàpp nañ ko ñu daal di koy dóor ba gaañ ko ban yëg-yëg nga am foofu en tant que koo xamante ni tamit sénégalais nga ko moom. waaw yëg-yëg ma am mooy lu ma métti am naa yëg bu ma métti métti na ma torop parce que ñun suñu famille amul kenn ko mësa dugg prison fii nii ndakaar fii daanaka fii laa juddoo yaroo fi mais bërëb bi mësuma koo xam biñ ko andee fii laa xam même ba ma doon ñëw fii sax dama réer. ñaari yoon ñëw naa fi mais dama réer même euh, rëbb kii nu mu tudd sax euh, tribunal bu ma doon uti kayit foofu da bu bees dama doon laajte laaj bañ dama fii la ñu utee kayit bi ma ñëwee tamit un jour tamit 5 heures du matin laa mën a yeew pour ma ñëw gis sama rax mën a teel a ñibbi waaw. boo gisee jamono yi nga xamante ni yaa ngi koy dem di seeti moom lan la lay dénk ci ay kàddu. waaw muñ leen la ma doon njëkk a wax bi ma gisee dafa ma ne baal ma àq la ma njëkk a wax baal ma àq la ma an sama yaay ndax mu ngi si jàmm ma ne ko mi ngi si jàmm. si yaayam nag la doon tudd wax dëgg ndax yaayam nag moo ñu bokk jur ñun ñëpp mais moom dafa féetoo foo xam ne ci moom euh, fu sori la daal ci moom waaw xaritam la. waaw dama fas yéene toog xaar ba xam am am naa ci yaakaar ba xam dina génn tey waa wala déet waaw na bu génnul tey daal daa bàyyi nañ lépp ci loxo yàlla yàlla daal mooy dogal moo ko fi dugal moo ko fi génnee tam bu neexee yàlla. waaw moom nag jotoon na am avocat ci li ma dégg parce que man a démarche yu bëri daan moo ko woon def sama benn cousin moo ko doon def waaw parce que nee nañ amoon na avocat Pastef jël nañ ko avocat defe na ak euh, ak beneen avocat boo xam ne pour boppam la daal mais boobu ba léegi daal beneen benn yoon la jot a dem enquête mais bu ñu demee enquête woon nañu avocat ba sonn avocat bi kiiwul daal jotuñu ko. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw kàddu mujj gi mooy euh, détenu politique yëpp. ñu bàyyi leen ci anam yi mu gën a gaawee daal parce que sonn nañ seen seen i mbokk tam sonn nañ ndaxte man fii man kese maa am koo xam ne man maa ko mën gën a mun a war a àndil añ waaw man maay magam boo xam ne man am naa benn mag mais kooku dafa feebar mënul ñëw am naa benn raq boo xam ne moom fi mu nekk dafa sore moom tamit maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp te di gis seen gis naa seen taxawaay jàppale nañ ko trop wax dëgg fa neex yàlla. waaw di leen remercier yéen ñëpp na ko yàlla génnee tey ji mbokk ci ñi. amiin amiin amiin amiin jërëjëf waaw.